xibaar yëpp di si di si bind di si wax ngir xool effectivement li nga xam ne moom la ñu andi comme programme par rapport ak li nga xam ne mooy ki ñu jàkkaar lool di nguur gi fi nekk à travers sa coalition benn Bokk Yaakaar donc je pense que bu ñu suscité li nga xam moo di intérêt des population à telle enseigne que euh, une large majorité de l'électorat sénégalais leen ba ñu daanaka am li nga xam ne moo di daanaka cohabitation au niveau de l'Assemblée nationale la coalition Benno euh, euh, Bokk Yaakaar qui passe de vingt cinq députés à quatre vingt deux non sans tenir compte du ralliement de Pape Diop qui en fait aujourd'hui quatre mm-hmm. donc de ce point de vue là dañu naan de la coalition Benno et une montée fulgurante de l'électorat euh, euh, sénégalais par rapport ak li nga xam moo di la principale coalition de l'opposition j'allais dire l'intercoalition même si juridiquement elle n'existe pas mais de nom gis nañu ni kuréel yooyu am nañu li nga xam ne am nañ ko mm. mais bu ñu demee ba yegg foofu par rapport ak li nga xam ne sénégalais moom lañ leen wax ñu dégg ko Sénégalais yi faral leen ci woteel leen ci def naa ne dañ ko war a jëfee ci doxalin dañ ko war a jëfee ci waxin dañ ko war a jëfee ci li nga xam ni moo di réduire au maximum le choc des ambitions même si il faut rappeler que ki bëgg loolu en réalité dafay créer une vitalité démocratique parce que itam bu ñu nekk kan moo bëgg nekk chef de quartier man bambak la mi ngay bu ñu nekkee yëkkati suñu loxo. bien sûr ba bañ a dem ci consensus ñu xool itam kan ñuy woteel mais une multitude justement de réduit considérablement, considérablement les chances pour l'un ou l'autre de pouvoir véritablement. c'est vrai que c'est une te parti ak euh, coalition yi ñun yàgg nañu wax ne loolu moo leen manqué euh, kenn ku ci nekk am nga sañ-sañu wax sa bëgg-bëgg mais est-ce que aujourd'hui l'intercoalition Yewwi Wallu ak li ñuy vendre Sénégalais yi waroon nañu toog 72 heures de discussion sans pour autant qu'il y ait consensus. waaw xam nga xam nga durée euh, en réalité amu ci solo. bu ñu yeggee si cappaandaw ga rek ndax am na consensus loolu moo di am solo autant trois jours autant cinq jours la mais l' intérêt mooy ñu ñoom qu'ils arrivent à un consensus consensus ba war a mën a tànn kenn si ñoom pour mu dem jàkkaarloo ak kii nga xam ne waa Benno moom la ñuy tànn pour mu nekk candidat à la présidence de l' Assemblée nationale mais aujourd'hui euh, euh, la coalition Yewwi et la coalition Wallu ñu ngi commencé di wan Sénégalais yi nii même bu ni le jeu des calculs politiques au niveau de l'hémicycle compte tenu des débats ak compte véritablement di si li nga xam ne bëgg nañ ko en termes de proposition de loi en termes de commission d'enquête et cetera et cetera ñu xool nit ñuy jëflante mais je pense que l'intérêt pour eux c'est d'avoir un groupe parlementaire l'intérêt pour eux c'est d'avoir un candidat parce une multitude de de de candidature. de de de candidatures à, la présidence une multitude de groupe parlementaires en réalité pour reprendre le ce serait une absurdité démocratique parce que en réalité Assemblée nationale xamul taxawu Sénégal Assemblée nationale xamul Guédiawaye la bokk Assemblée nationale xam kan la xam coalition Yewwi Assemblée nationale kàlla xam. coalition wàllu Sénégal yoon gi coalition bi leneen ak leneen. d'ailleurs dañuy ñëwaat dinañu ñëw ci ces groupes parlementaires yi nga xam ne wax nga ko euh, euh, sëñ Bamba présidence bi tey ñoom doon nañu wax ne bu ñu demee assemblée nationale ñëpp xam nañu ne le vote est secret. aujourd'hui mën nañu am le président de l'assemblée nationale mu commencé ci benn mu jóge ci Benno mën nañu am également le président de l'assemblée nationale mu jóge ci l'intercoalition Yewwi Wallu mais est-ce que ak nii nga xam ne gis nañu ko mbir yi di raam kenn ku ci nekk bëgg samp sa ngënd te ku nekk bëgguloo bàyyi sa moroom mu dem mm. est-ce que mën na leen a jural ëllëg ñu am kuy jiite assemblée nationale mu fare ci ku jëkk politique bi man Fatou euh, man man moom personnellement yeewi dañu maa bett mm. waaw dañu maa bett parce que yi askan bi euh, ñoom lañu doon woote ba Sénégal yu bari gëmoon leen faral leen amoon espoir si ñoom dañoo waxoon ne dañuy changer li fi xew dañoo waxoon ne dafa am yu bëree bëri yu fi xew yoo xam ne ñoom dañoo ñëw pour bu leer dañoo waxoon ne que nii réew mi di doxee si politiciens yi ñoom am nañ li nga xamante ne mooy askan bi da leen tënk ba ñoom ñu bëgg leen ne yeewi andi lu bees andiwaat yeneen mais tey bu ma demee ba gis ne yi politiciens classiques yi ni ñu doon def ñoom moom lañ commencé di reprendre en même temps kon cela veut dire que mburu foofu ko que su ma ko waxee mooy ñu li dañoo rafet rek dañoo baax sax di wax ne le choc des ambitions mais Fatou je l'appellerai autrement que c'est le partage des gâteaux ou du parce que ñoom fi mu toll nii ñoom loolu moo leen boole mooy ku nekk fan nga bëgg a nekk fii laa bëgg a dugg. fii laa bëgg a mais mais yeggaguñu foofu. parce que aujourd'hui on parle de la présidence de l'Assemblée nationale. qui euh, ñëpp xam nañ ne certes a des avantages mais euh, sañ-sañ la aussi. waaw mais day wane ne ñoom dañoo am ambition tout simplement. ñoo bëgg a nekk nan ñoo bëgg a nekk si biir présidence si biir ñoom seen euh, intercoalition bi. Barthélemy Barth Barthélemy Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara. oui ak euh, ñi nga xamante ne mooy. Bara Dolly Lamine Thiam Lamine Thiam ñoom ñoom fu ñu bokk si intercoalition Yewwi Wallu. am na sax ñu doon laam-laamee Birame Souleye même si pas de manière officielle dégguñu ko. lan moo tax léegi tey mënuñu am consensus bi. Euh, Ablaye euh, Bob euh, Mbow ma di que ay question de temps d'accord temps mais ba léegi nii ñoom seen biir kenn ku si nekk jàpp nga ne man liggéey naa si liggéey boo xamante ne man am na fu ma jaar foo xamante ne man lii war naa ko mérito parce que am Ahmed Aïdara la mu teg si wàllum li nga xamante ne mooy yoon bu nekkee ñoom loolu lañu waxoon kon moom Ahmed Aïdara si diggam la nekk parce que dafa ne si li nga xam mooy 19 membres du conseil des leaders moom moo si nekk député kon moom la moo am àq ak yelleef pour que ñu fal ko tey président Euh, de l'Assemblée ki nga xam mooy Barthélémy Diaz moom parce que tout simplement. que mais mais pacte ñu signé ñoom pacte yi ñu signé également autant loolu ci pacte yi la bokk autant le cumul des mandats faisait partie quand même. ci parti te pourtant Ahmed Aïdara respecté ko. voilà Barthélémy Diaz respecté wu ko keneen encore. respecté wu ko moom laa bëgg a développé dama la parce que ñoom seen biir dañ maa bett loolu laa la doon wax. ok Aliou dama ne dañ ma bett mooy. ñoom dama foogoon ne ñoom lépp li nga xamante ne nguur gi mi ngi lépp li nga xam mooy Benno Bokk Yaakaar mi ngi ko ñoom ñoo njëkkoon toog fi ay jamono di wax ne que cumul des mandats yi dina fi jugee man na Fatou si cumul des yooyu man par principe par principe man ba ñu ma cumul des mandats xamul tax parce que tey ki nga xamante moo nekk maire su ko yàlla dimbalee mu nekk tey député foofu nga xamante mooy fa ñuy jëlee décision foofu ñuy séddale ba fa nekkee dina mën a fexe ba toog fa mën a bokk si séddale bi yóbbu si askanam waaye ñoom nag par accord ñoom ñoo waxoon ne nanguwuñu lii di cumul des des des mandats waa léegi Ahmed Aïdara lan la nekk tey maire ak député. Hmm. Barthélémy Dias tey lu mu nekk tey. maire ak député kon tey anam ñoom lu ñu waxoon sa à dire ñoom seen bopp kon dañuy jéem a woote loo xamante ne gëmuñu ko léegi nag bu ñëwee ba si biir euh, présidence assemblée tey la moo tax Barthélémy Dias wulu mën a bàyyi Ahmed Aïdara mu dem parce que am na ay ambition parce que Barthélémy Dias dafa am ambition mooy ñoom ñëpp dañoo viser deux mille vingt quatre Barthélémy Dias dafa bëgg a defar li nga xamante ne mooy trajectoire rafet Ahmed Aïdara am même ambition yi parce que Ahmed ñoom waa Yewwi dañ ko sous-estimé yaakaar ne peut-être li ñu ko jox nii doy na sax Ahmed gis leneen bëgg leneen di envisager leneen léegi nag foog ñu mbëkkante foog ñu kii mais nag man ki si perte nag te moo ko mooy pour man Sonko c'est lui qui va perdre Sonko il a il va perdre parce que il a changé son programme Sonko a fait une erreur de changer de programme. parce que parce que Sonko ba mu doon ñëw. moom ak waa Pastef dañoo waxoon ni yëpp ne ñoom yi bokk si ñoom mooy tey benn dinañ fexe ba am benn groupe parlementaire dinañ si ñëw beneen mooy dañoo waxoon ne bi ñu wax nekk si cumul de euh, fonction yi ñaar ñetteel bi mooy dafa waxoon ne ay affaire système yëpp da ko dindi li fi nekkoon lépp mu teg ko fële ànd lu bees mais Sonko en même temps que mu dugg si ay coalition en même temps muy dugg si li nga xamante ne mooy ay intercoalition Sonko est en train de changer son programme parce que ñi muy àndal dinañ ko fexe ba dugal ko si loo yi dugal ko si lobby bi dugal ko si tey li nga xam mooy système bi ba léegi lépp li nga xam ne amoon na fi nekkoon na fi mais mais est-ce que en ce qui concerne la la présidence de l'Assemblée nationale est-ce que moom euh, loolu dafa dafa am lien ak son changement de programme bien sûr c'est quoi le lien lien bi mooy lien bi mooy tey bu fekkee ne tey moom mi ngi jéem a jàppale ki nga xamante parce que Sonko ñëpp xam ne ne moom Lamine Thiam la bëgg mu nekk président